salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku bu baax ci yéen tey jii le 12 juillet 2021 ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi waaye balaa loolee ki ñuy seetaan te aboné ñu ngi koy ñaan mu abone mu bës cloche de notification bi nga xam ne lu ñu dugal rek mu jot ci ci temps réel bi ñu dooree ko fii ci Sénégal record yéene kay bu groupe Futur Média la ñuy jël sacré Italie maudite Angleterre loolee la wax Italie jël na euro bi waaye kii di Angleterre ma ngay wéy di umu ñoom kat jëlaguñu euh, coupe d'Europe ba léegi waaye nag euh, fii ci Sénégal démb am na jàkkaarloo bu amoon ci bëre ci diggante kan euh, Balla Gaye numéro 2 ak kii di Bombardier loolee ma nga doon amee ca 2 waaye kii di Balla Gaye nag becc na fa ay kàddu gëm nee na ko Bombardier amoo benn change ci man maa la dàq bëre maa la dàq dóor maa la dàq xeex kon yow amoo fenn foo ma mën a jaar ngir daan ma. jógee record yéenekaay bu groupe Futurs Médias jël stade yéenekaay nee na gént gi waa Angleterre doon gént kii di Italie yàq na ko ña nga doon gént jël seen coupe d'Europe bu njëkk waaye loolee amul Italie jël na ko ci kawam waaye fii ci senegal TFC Tëngéej football club gone Youssouf Daabo yi doon nañu champion fii ci senegal jël nañu yëf ya ay ci njënd ak doomu Sénégal bi doomu Sénégal bii di Boulaye ja nekkoon fële ca stade Reims ca France daf fay jugee dem ca Villarreal dina fa signé cinq maanaam juróomi at loolee ki ko xamle mooy stade yéenekaay Villarreal ma nga ca Espagne. ñu jugee Sénégal wutali France wàcc ca capitale ba fekk fa l'équipe l'équipe ma ngay wax ci goney Italie yi di def ay jaloore invincible loolee la wax kenn mu leen a jaaxal ñëpp lañu duma loole sax tax na góolu Angleterre bii di Pickford ma nga toog jàkkaarloo gone yi ñuy bégee nee nañu kii di Italie am na 34 match kenn dóoru ko kon nag yëf ya day tax ñoom ñi coupe bi ñu jël démb di euro ñu jël seen ñaareelu coupe d'Europe ñoom ñii di waa Italie fekk waa Angleterre ca biir anglais Angleterre ca biir Wembley duma leen dem fële ca Italie di bégee France Europe la ñuy jógee ne coow wutali Amérique du Sud wàcc fan Argentine fekk fa Coronica Coronica ci mbégte mi nga xamante ni ñoom lañ nekkee ñoom waa Argentine lay wax yéeg nañu ci bus dugg ca mbedd ya nag di ci saafonte gaay di photo kontaan lool ginnaaw bu ñu toogee 28 euh, ans ñaar fukki at ak juróom-ñett jëluñu ko coupe ba nag dugg na waaye kii di Lionel Messi la Pulga moom mooy capitaine ba ba mu jëlee kàddu nee na mbégte mi yëpp nañ ko jagleel kii di Diego Maradona buñ ko fàtte ndax nekkoon na fi yàgg naa bëgg lii yàlla def na fekkeewu ko nañ ko fàttali ko moom mii di Diego Maradona liggéey Amérique du Sud wutali fële ca Londres ca Angleterre fekk fa Mirror Sport nee na non non again moom mii di Mirror Sport métti na lool kii di kan la fa dalal kii di Marcus Rashford ma ngay naqarlu nag penalty bi nga xamante ni da ko rate waaye nag malédiction bi leen topp muy bukki bu leen topp di leen matt ba léegi mu ngi leen topp ñoom ñii di waa Angleterre final bi ñu mujj am ci Euro kii di Gareth Southgate di coach ba dafa rate woon loolee nag moo daal doomam yi mu mujjoon dugal nga xam ne tir au but kese moo taxoon mu dugal leen muy Sancho ak kii di Marcus Rashford ñoom ñaar ñëpp dañoo rate waaye loolee nag tax na dëkk ba mànkoo nañu doon benn naam ñàkk nañu coupe ba waaye moom ànd nañu booloo doon benn ñu jogee Mirror Sport jël Daily Express Sport moom mii kat ma ngay wax ci naqar gi ñu am waaye nag journalu it Angleterre yëpp ci loolee lañ wax naqar bi c'est tellement cruel naam jëlu leen coupe bi waaye nag dëkk bi moom boole ngeen ñëpp xool yi doon benn kon nag jàmbaar ngeen te jàpp leen dina baax. jógee Angleterre wutali Italie ma nga xamante ni foo sànni mbattu jamono jii mu tag fekk fa Corriere dello Sport c'est la nôtre loolee la wax coupe bii ñoo ko moom ñun waa Italie du mën nañu Angleterre par tir au but waaye loolee nag nañ ci sant kan kii di Gigio Donnarumma jàpp na ñetti penalty kon gone gi wane na boppam bu baax waaye coach ba di Mancini Roberto ni jooy na démb xëtiit moom nag jooyam yooyee jooy bànneex la ndax démb gone yi dañ koo bégal bu baax a baax. Tutto Sport nee na ñoom rek la ñoo jël ko bi ñoom waa itali dañoo dem ca Angleterre fekk fa Angleterre ak Harry Kane ak ña muy àndal duma leen dem seen dëkk dellu nag di feet ña ngay bëggee jamono jii ca Italie. jógee Torino jël Quotidiano Sportivo. on est content loolee la wax bég nañu de ñun waa itali naam ba ñu dawalee ñaari minutes la Angleterre dugal waaye gone yi nekk ci ba égaliser ñu dem ca tiro bi ñun waa itali ñoo njëkk waaye gone yi gëmaat ko rek ba yàlla def ñu indi coupe bi fii ci itali li nga xamante ni gëjoon na am mille neuf euh, euh, depuis lu mat cinquante trois ans maanaam juróom fukki at ak ñett coupe d'Europe duggul fii ci itali tey nag dugg na fi. Quotidiano Sportivo jël Gazzetta dello Sport tropo trop bello loolee la wax trop beau doon nañu champion d'Europe waaye nag loolee di Gigio Donnarumma wane na boppam mooy héros bi mooy mbégte mi moom mii di Gigio Donnarumma moom mi jàpp ñaari penalty te moom kat la ñu tànn mu doon gone gi nga xamante ni moo gën a xarañ ci compétition bi maanaam Euro bi mu dooree ba léegi gone gi ci gën a xarañ mooy kii di Gigio Donnarumma Italie wutali Espagne ci ca capital ba fekk fa Marca yéenekaay Wembele yaasoo loolee la wembale daanu na itaali moo fa jaar jël coupe yóbbu ko ca itaali waaye Messi tamit daaneel na waa Maracana waa Brésil jël na Copa bi moom mii di Messi kon nag doole ma ngi koy yokk ngir lan Ballon d'Or bii di ñëw waaye tamit AS yéenekaay la mu wax tamit nee na magnifique Italie wane na boppam bu baax jël na coupe bi ci Angleterre Southgate daanu na ànd ak jii di Rashford liggéey ca capitalu Espagne ba di Madrid wutali Catalogne fekk fa sport le bonheur de Messi loolee la wax Messi ma ngay bëggee dem na ca Maracana fekk fa xaritam di Neymar duma ko benn bal ci dara Angel Di Maria moo dugal bii ba waaye Argentine gépp demb ci mbedd mi lañ fanaan di bëggee waaye Barcelone ci wecco gi ñu doon wax bërki démb kii di Barcelone nee na du yokk doolay Atlético ginnaaw bi mu ko joxee Luis Suarez yéen xam ngeen bu baax ne daaw Atlético moo jël championnat bi nee na ngir yokk doolay diggante euh, Saúl Ñíguez ak Griezmann mën naa bañ a am ndax Barça nee na du yokk doole Atlético de Madrid. jógee sport jël Mundo Deportivo yëf yëf fa lay jeexee sax Messi euphorique loolee la wax Messi mu ngande la ñu gis ci Copa América bi Messi kat jël na kubam bi gën a mag ak Argentine loolee ma ngi ko doon ñaan am na waaye nag ca Copa América ba Messi réussir na ko ndax moo jël meilleur buteur jël meilleur passeur jël meilleur sóor naam dañ ko séddale moom ak Neymar kenn ku ne jox nañ la sa bu bopp waaye Lionel Messi feeñ na lool ca jongante yooyee doon am waaye kii di Gigio Donnarumma moom mi kat dafa glacé waa Angleterre sotti glace démb ba yëf yi di def ca tiro bii ba ñu ruus lool ànd nag di yolos yolosi kenn ku ne dugg sa biir kër loolee nag tax na itali jël na euro bi waaye Angleterre ma ngay wéy nag di yaakaar goneem yi gone yi sax ñoo rate Rashford Sancho waaye nag gone yi nee nañ leen nii la ñu fàtte ko rek jéemaat leneen kon nag sama gars yi yëf yi foofu la yam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba suba jàmm incha allah